àdduna bii mu ñëw fekk ko fi fekk fi ku ko gën ni am naa ci moom yaakaar ëllëg du tas sama yaakaar tudde ko tur woo xam ni neexut a gis ku ko njëkk tudde tur woowu muy Abdul Ahad bi firi jaamub yàlla mi aji kenn te amut ñaar wax ca wax ju yéeme tur wi ma ko tudde ku ko mën a wax ta waxin wi jub ëllëg sunu borom du la lakk ci sawara dina la jéggal tàbbal la aljana ku mën a wax turam muy abdul ahadi maam cheikh ibrahima fall wat ko baabul muridin ñu tudde ko abdul ahad am na magam ju fekke jataay bi di cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke borom guy mind borom wilaaya jure ja ba mu déggee wax yi sëriñ bi wax ci rakkam mu ni su ma delloo gan gu ma njëkk a am muy doom ju góor dinaa ko tudde sama rakk ji ngir wax waxi sëñ Tuubaa ji ba mu demee la am doom ju góor tudde ko ko muy Abdul Ahad kooka lu tuuti la maganteeg sëñ Abdul Ahad sëñ Abdul Ahad daana wax ne ñi ma bokkal sëñ Touba sëñ baaraama ci njëkk a defal ñeent mooma ma njëkk tudde doom mooma njëkk bindal gàllaaj moo njëkk may ay dàlli bot moo njëkk may mbubb ngir jaxasoo nu jaxaso bi yàlla dogalee mu toll ci jàng alquran sëriñ bi wane ci moom kéemaan sëriñ bee ko dalalal boppam jox ko nijaayam sëñ Amsatu Jaxate mi bokk ak wéy juróom bu jigéen lépp boole kook rakkam yu tedd sëñ Saalihu ak sëriñ Suwaybu ak sëñ Abdou Samad mu sëñ Tuuba ak seen mbokk ma sëñ Abdullahi Jaxate mu sëñ Amsatu Jaxate ñi ni sëñ Amsatu sa jarbaat yii ma lay jox joxuma la ko ngir aada aada mooy ñaare nijaay dañ koy jox jarbaatam mu yar ko dama bëgg li ci yow di alxuraan nga def ko ci ñoom soo amee ko la ko ci defal tamit ba tey baax na mu indi leen ci kër gi boole leen ak rakkam tudd sëñ alsaan jaxate mu leen di jàngal alxuraan waaye mu seetlu ni njabootu sëñ bi ku ñëw jàng dangay ngay teel a mokkal sëñ abdulaat lu mu jàng fàtte ko ñi mu bokkal lu ñu jàng buñ ci yendoo mokkal ko moom dina ci fanaanaat du mokkal mu dem ak moom luy sori mënta fexe ba mu mokkal sëñ Alsaan Jaxate wax ko magam sëñ Amsatu Jaxate ne ko njabootu ku ki fi ñëwoon de yaakaar naa ñëpp dinañu mokkal waaye ki ñoo Abdul Ahad de yéemu naa ci moom lu ñu xëy jàngal ko balaa ngoon mu fàtte ko mu ne ko comme noonu la demee te sëñ Tuubaa ma leen dénkoon dangay bàyyi ma dem wax ko yaakaari jàmm dem njaarim wax ko sëñ Tuubaa sëñ bi ni ko ëllëg ñëwaat fi indil ma Abdul Ahad dañ koo waajal loolu laa bëgg ñu xam sëñ am Amsatu Jaxate jël ko andil sëñ Tuuba ba ñu ñëwee sëriñ bi ni ko demal yóbbu ko mu waaj jàpp te ñëw fekk si mu dem wan ko jox ko ndox mi sottil ko mu jàpp ba mat ñu ànd ñëw ci sëñ Tuuba sëñ bi ni nikk kaamilu alxuraan teg ci loxoy sëñ Abdoulaat ni ko jàppal ba mu dër ak sa ñaari yoxo mu ni ko nikk sëriñ bi ni ko téere bii ma la jox du lu ma la may du lu ma la dénk du lu ma la jaay waaye dama la koy lebal xam nga luy bor bi loo may fayee mu ne ko waaw mu ne watt ko ba nga xam ni dara dootoo ko ci fàtte soo ko defee dinaa la dimbalee bijjanti la gunge ba biir Touba ñëw dëkk ak yéen ci Touba dénk ko mu ne waaw sëñ Touba ni ŋaang mu daldi di sëñ bi ni innama yasarnaahu bi lisaanika tëf innama yasarnaahu bi lisaanika tëf ba muy ñetti yoon mu ni ko dénk ko mu ne waaw cheikhul xaddim làmb ñetti kaalaam yam daan kaalawoo teggi benn bi teggi bi ci topp rocc bu ñetteel ba ca biir jox sëñ amsatu jaxate ni ko boo demee neel soxna fat si la libaas nag ko topp tool ba mat ko lu mu sol morso lu ngeen ci jëlee nag ni ngeen ko ci delloo lu dul li mu sol li ci des na ngeen ma ko indilaatal dénk ko mu ne waaw mu ni baax na dimbali nañ sëñ abdoulaat bu xëyee bu nu jàngee balaa ngoon mu tari laaj lu ñu bindaat waxal na boppam nii ba ma gisee ku tedd ki sëñ Tuubaa ba mu tifli ma lorom bi amul lu romb sama bët wala sama nopp ma fàtte ko te ñi jamonoonteeg moom dégg discours am xam nañ bu ma saa di wax dangay xam ne alxuraan ay njëkkante làmmeñ mu koy tudd too koy sëñ Abdoulaat sëriñ bi ni am naa ci moom yaakaar tasul yaakaar yi sëñ Tuubaa boo déggee ñu wax ak wala bâtisseur dafa bâtir ci Tuubaa tubaarkàlla sëñ Abdoulaat a defar kërug alxuraan kërug alxuraan muy daari kaamil sëñ Abdoulaye. sëñ Modou Mamoun nee na ma. nee na sëñ Modou Mamoun nee na ko. bu ñuy jàng moo xale ñuy jàng moo xale ya. buy tari buy day doon jàng day tari ka doon eh, jàng ca wetam la mu doon jàng lay tariwaale. sëñ bee ko dimbali. mu taxawu Touba tem ni nag duma tas yaakaar yaakaari sëñ Touba ndax moo ne woon am na ci man yaakaar mbokk yi yéen ñëpp xam ngeen ni. Touba mënta ñàkk këru alquran ndax sëñ bi dañu yàlla féetale na ma alquran sama alal la mu defal ko daaray kaamil taxawu Touba ba def fa kër mag moom kër mag moom mooy képp ku mag njabootu sëñ Touba te yilif Touba yaay moomaale kër gi sa kër yéemu ci muut ñeenti seere woolu sëñ Amsatu Jaxate sëñ Amsatu Mbàkke mu maam na borom daaru tànkal sa baaram woo ko ñuy wax sëñ seex jaxate mu sëñ amsatu jaxate woo ko ñuy wax bayti faati dem bi nekkoon greffier bu njaareem man la ma wax vérifier day leer ni asamaan ah woo sëñ Modou Mamoun ñang waaw jërëjëf woo sëñ Modou Mamoun ñang ñuy ñeent mun dama leen di jël seere kër gii ma defaral sëñ Touba mooy këruk mag moom ku mag ci njabootu sëñ Touba yaa ko yilif waaye nag dama bëggoon ngeen seere ni man mi ko taxawal sax moomu ko ki fi newal sëñ Touba rek a ko moom ma bëggoon bis bu ngeen déggee ni wàcc naa liggéey su dee jëloon naa benn saabu doon ko jëfandikoo përngalu saabu ba bu ko kenn tuxal nañ ko bàyyi ci kër gi ki nu kër gi moo koy moom loolu defe naa mooy jàngale transparence sëñ Abdoulahat topp magam sëñ Modou Moustapha liggéeyal ko liggéey bu rafet bi mu noppee gis Serigne Touba 1927 ci la laxasu topp magam sëñ Modou Moustapha 1932 la njëkk a sañ ci dëkk ci ndigalu sëñ Modou Moustapha Daaru Rahman la dëkk ba tudd 1932 mu sañcaat dëkk dëkk baa ngi tudd Kaddu Baloo ji 1935 moom sëñ Abdoulaye mm-hmm. mu sañcaatub dëkk Gelongal 1935 ak 36 mu sañcaatub dëkk 44 mu sañ ci dëkk Daaru Salaam bukki barga la tudd topp sëñ Modou Moustapha Bousso ak alaaji Baara Fàllilu wàlliwu rëy wa boole leen waaw waaw ak soxna Xadi waaw soxna Xadi Ba ak alaaji Baara Fàllilu ak sëriñ Daam Jatara ak ku ñuy wax sëñ Mamour Seck ca la dajale leen ñoom ñëpp fay lépp ñu ñu ñu ànd ak sëñ Abdul Xaadir aji màgg alaaji baara dani ko woon nang ma toppatool sa baay bii di sëñ Abdul Xaadir na dem ba delsi bu ko dara xoos soo ba ko gungelee ba mu ñëw téel ma kaaraangeem dara xoosu ko li nga bëgg sëñ Tuubaa laa koy wax ci yow te dina ma ko defal yéen ñëpp xam ngeen sëñ Abdul Xaadir fu mësi di génn alaaji baara yor buntam waaye defal na ko tawféex nag defal na ko tawféex alaaji baara mujj na boole loo xam ne xalifab sëñ Fallu xalifab sëriñ Touba te njàccaar yoon wee ko waxoon maam Cheikh Ibra Fall ba ko Cheikh Ibra gis ak xilaafaam boobu sëñ Touba ngi fi parce que dégg lool alaaji baara xilaafaam ko maam Cheikh Rafal di wax sëñ Touba ngi fi laa wax xam nga ñaata ñoo mag sëñ alaaji baara gi sëti sëñ Touba yi fukki sëti sëñ Touba ak benn ñëpp di ay góor yàlla ñëpp a mag alaaji baara lu tax mu njëkk a toogal sëñ Tuubaa cib sët xam ngeen ni lu ñu fàggu la bu yàgg maam Cheikh Rafal maa ngi ziar soxna Batoor Jaxate mu jigéen bu baax bële di mbokk ci man di nit ku baax maa ngi koy ziar bi may njëkk am lan teeg ina lépp ci loxoom la doxe fàttewuma ci dara ak ko ñuy wax Ami Ndiaye Sumer fàttewuma ci dara as gor suy fàtte démb gorewul maa ngi koy ziar ma wax ni fu ma tolloo ci maam Cheikh Rafal xuru Mbàkke la maam Cheikh Rafal jël juróom benn téeméeri taalibe maam yi soxna su tedd si doomi sëñ Abdourahim Fall maa ngi koy nuyu magam sama xarit la lool soxna soxna jee jee Abdourahim waaw soxna jeem sëñ Modou Moussa Fall ah ak waaw maa ngi ziar jërëjëf sant wi waaw maam Cheikh Rafal la jël juróom benn téeméeri taalibe yóbbu leen lël yàlla dogal mbas jaar fi rey ñeent fukk ci ñoom mbas jaar fi rey ñeent fukk ci ñoom nit ñi di def saa suñu xëyee dem jaale ji ko maam Cheikh Rafaal booba mu nga xuru mbàkke booba mu nga xuru mbàkke benn yoor yoor sëriñ Cheikh Roqaye Diop jarbaatu sëñ Modou Moustapha nee na fa la ma fekk kon loolu gën a leer benn yoor yoor jot maam Cheikh Rafal ni bërët taxaw ci xuru Mbàkke ni nañ ma xoolal ndax sëñ Touba daa ñëw ci dëkk bi ndax xetam mu ngi may xëy mag ngi daw dugg ñëw ni ko Fall di gisuñu sëñ Touba mu ne ah mosuma xëy ñi nii te gisuma ko de mu ngi xëy ci sama kër gi de léegi mu ñëw duggaat génn nii xoolal leen ma bu baax ndax dafa jige dëkk bi mu may gën a xeeñ de suñu gisul tey sëñ Touba gis ku doon sëñ Touba ñu demaat ab diir ñu ne ko Fall am na kuy ñëw. nañ xool ko mu doon ñu xool muy sëñ Fallu sëñ Falloo ngi war. ci façon xaj sol euh, manto baraay bu baxa ak dalli marakis yu mboq ba muy ñëw ñu ni maam Cheikh Ibra Fall am na kuy ñëw mu ni doom nañu seet ku mu doon ñu ni ko sëñ Fallu mu ne xam naa ko moos daa doon sëñ Touba di sëñ Fallu ak seeni cëpp nuyoog moom ni ko bàyyi Cheikh Ibra ñu ngi lay mat saw li fi xewoon ni ko waaw waaw ni ko ñu ngi lay mat li fi xewoon waaye nag sant yàlla rek ndax dangaa naroon a dem te yow mën a goo dem léegi da ngay jàngaleeg taalibe moo tax sunu borom remplacer sa ruu gi ñun fukki ruu ñu demal la nga teg fi dina jàngal taalibe dana yàgg dana neex bàyyi Cheikh Ibra maam Cheikh Rafal ne ah, ne waaw mu daal ah bisimilah jàmm daal di jël tànkam ya daal di gaaw sukk jël daal di sëñ Fàllu fop mu ne ko faal mu ne dàll yi nañ ko téye bu baax doomi sëñ Bamba ko moom Cheikh Roqaya mu ne ko faal mu ne fii sëñ Fàllu jéggi ñetti ndëggu tànkam nañ ma ko topp tool bu ci tànk tege nañ ko wëral wërale benn wërmbël bu ko tànkalaal sunu borom nee na ma ku bëgg a am àjjana ju wóor ñëwal xool ñetti ndëgg tànkam yi fi marqué mag ñi di ko xool ab biir mu ne ah sunu borom xamal na ma ci leneen suñ demee ba gisatunu sëñ Touba ci suuf si gisatunu doomi sëriñ Touba surtout sëñ Touba bii njëkk a toog sunu borom nee na borom ñetti ndëggu tànk yi mooy nekk bàyyam naa loolooy alaaji baara ah? loolooy alaaji baara kon kookee la sëñ Abdoulaat délégué woon ni ko gungeel ma sa bàyyi sëñ Abdoul Xaadir sëñ Abdoulaat kon moo yar ñëpp gindi ñëpp bëgg sëñ bi ba jeex nag boo demee ci xasidaam dani sëñ Touba entaytuka al yawma bila inqitaa'i kulliyati yaa xaadimal mutaa'i sëñ Abdoulaat nee na sama lépp liñ may tuddal jox naa la ko xam nga jànkat yaa ngi kulli ak kulliyati bokkuñu rôle ci arab hmm? kulli su ma yoroon tey di maye sama poos bi ma def ci un million di ko séddale di joxe ba mu yàgg nga di ma sëñ Ablaye dangaa joxeetu la man la li ma yoroon lépp joxe naa ko pourtant du lépp de xaalis bi laay wax waaye su ma nee kulliyit yi nag daa gën a foor mooy lu ñu may tudde rek muy sama lépp joxe naa Abdoulaye nag nee na sama lépp lu ñuy tudd ci man jox naa lépp sëñ Tuubaa di dootuma ko rocc kon kooku fa la tolloo kon war nga koo wooteel Mbàkke Bàll nu la fee fekk si war a fàttali jikkoom sëñ Abdoulaat nag day ñayu xar fit njàmbaar fulla dafa am juróomi sëñ bi waxoon ni doomi soxna bu ci góor góorul mbiram du baax nee na doomi soxna bu jàngul tilim waaw sëñ Tuubaa ko wax doomi soxna su jàngul tilim diw de kilifaa ko jur waaye dara xamul kooku baax nee na doomi soxna bu sancul réer dëkk sa sanco baay du njàmbaar ah, dangay ngay fexee sanc yow am say dëkk nee na doomi soxna bu liggéeyu loof te yori toolam di liggéey nee na doomi soxna nu ne waaw mu ni bu jaxasoog buur yàqule waxi sëñ Tuubaa laay wax de ah, doomi soxna bu amulu fit ñu dëpp ko waaw kon yooyu sëñ Tuubaa ko waxoon sëñ Abdoulaye yëpp boo ko ci natt rek mat ci sëkk temporel ñoo gën a respecté sëñ Abdoulaat temporel ñu jiite woon àdduna ko gën a dafa am fii menn année ma wax la lu wér ko ñuy wax alaaji Tamsir Mbuub man naa am fi ñu ko xam moom ñoom alaaji Ndaama Faa la nekkoon ca Congo ngoog dafa gëmoon sëñ Abdou Aziz Dabakh lool mënoon a joxe hadiya am ci at moom ah, dañ leen a dëpp mi 1972 ñu del si Sénégal bi ñu ñëwee nag mbir yi xaw a tëje mu wax ko sëñ Abdou ne ko man de la ma yaakaaroon si tëje na te fi ne bi dama am kóllëre Adja Awa Diop mu baax damaa am kóllëre ak ay belge yoo xam ñoo ma jox ay tissu tissu yi ñu ngi koy jële ji ba Belgique di ma ko yóbbantee Congo ma war koo dugal Sénégal te pour mu dugg Sénégal faaw ma am signature borom réew mi autorisation laa amul te lii mba si Malick yaa ma ci mën a dimbali sëñ Abdou ci mbaax gaak ñàkk ki ñaan ni ko waaw li nga bëgg soo bëggee mu gaaw sot dañuy dem sëñ Abdoulaye ni ko dina dañ ko wax sëñ Abdoulaye rek dina ci gaaw ñu ànd ñoom ñaar seeti sëñ Abdoulaye ba ñëwee mu wax ko ba àggal sëñ Abdoulaye ni ko waa ji sëñ Abdou ni nga ko bëggee incha allah Abdou Diouf ne dina fi ñëw xam naa tey jii la alxamis waaye dibéer la ma wax kon da ngeen far jàpp ko ngan nu xaar ko bu ñëwee mu dis ko ko ndax dina ci man dara mooy premier ministre ñu toog fa ba dimanche Abdou Diouf ñëw mu baamu ba àggal Abdou Diouf ci mënta gantu waaye si gantu daal xamut loolu moom da koy wax lu leer rek mu daal di wax ni ko waa dinañ ko ko defal xam naa kon Mbàkke dina ñëw après euh, primature mu fekk ma fa rek lundi dina ñëw ma defal suba mu ni ko dégg nga ko mu ni waaw kon topp ci mu xëy nag dem primature yi ñëw Abdou xool xool ni ko mënutu mënutu xool naa ko mais mënuma jaaxle am mu daal di dem wax ko sëñ Abdou Aziz Dabakh mu ne ko loolu la wax mu ne waaw mu ne bu la ci dara métti demal sëñ Abdou Lahad mi ko waxoon mu ne loolu la Abdou wax mu ne waa mu ne ana sëñ Moustapha Bassirou nañu ma ko wol mu ñëw mu ñëw mu ne ko damaa bëgg soo xëyee suba teggil ma Abdou ba fa sax jaar demal ci Léopold na yor réew mi nee ko damaa bëgg mu taxawu jullit bii ci ci ci soxlaam si bu ko taxawulee ba noppi nag na jaar ci Abdou benn baat dong la koy wax su dikkatee fii ci Touba fekk ma fi te wax ak man wax ja sàmm ko na xam ni Euh, dëkk bi dina xam ne dëkk bi am na boroom bu fi dikkatee te du Senghor ko fi yónni dina xam ne fii am na boroom waaye ba mu ñëwee mu signal ko ko sengoor ni ko jaaral ci Abdou mu daal di tamponné mu ñëw Abdou tamponné <laughs> am lu ko métti fekk booba day protéger ay mbokkam ñoom man Mansour Buuna parce que booba jamono dafa am ku jox Mouhamadou Ñakkuwaa moo jiite woon fii wàllu seti ba fi ñu defee tissu yi ah, ah tey it kële bëggul ay mbokkam seen tissu yi daanu waaye ginnaaw bi alaaji ndaxte gay la jaar ca ndànd moo ko dimbalaat sëñ Abdou Lahad ba mun ko accepté waat pour walla sëñ Abdou Lahad fi mu nekkoon koo mën a doon bi yeboo nga jiiteem réew soo teggee dara ci li nga ko wax mu dal ci sa kaw yaa taxu ko yooy raw ñamu raw yow laa fi gis ku fi raw ay see xam laa te nga raw ko yàllaagu yaa man ku man ku fi man def li ñu magal Cheikh Abdoulaye yaa taxu ko te man ñamu man yow laa fi gis ku fi mane am ko yàllaagu Cheikh Abdoulaye bàyyi sëriñ si de ak Seexuna yow laa fi gis ku fi gën nga gën ko yàllaaw yow ko jumaa di Seex Abdulaay daara yi kaaba yi lee bàyyi laa këru ma noon su mag ne Seex Abdulaay sa baay yow ko jumaa jee Seex Abdulaay ak moom sax Cheikh Abdoulaye yokkub jumaa ji Cheikh Abdoulaye autoroute bi sax Cheikh Abdoulaye moo yeesalaat ay nu rahmati yeesalaat jumaa ji tabax autoroute bi mu jëm Touba Cheikh Abdoulaye waaw mat na ko de Cheikh Abdoulaye kon kookoo dimbali ñëpp aalimu kulli fannin la woon waaye xakim la woon lu mu la wax nga jàng daana wax ni yaree du ko dee yaree di ko dee ku ma may mburu ku ma may café soo yare woon amaale dogu mburu moo ci boole ku ma noon a jàngale mooy si Abdou Lahad am na ku ñëw ci moom di fecc yi xew tey fecc ci wetam sëñ Abdou Lahad di ko xool mu fecc bàkkaar ñi ba doyal ni ko waaw li nga mu ni ko xam ne yaay sëñ Tuubaa mu bëgg la di mu ko boo dee ba def ñetti fan ci suuf di xam ne mag lu mu def lu jaamu yàlla wàcc na ko ci la ànde woon ak ñëpp ku ma mën a doon wax la dëgg bu leer nañ ñi nga koy dégg mënoon a jàngale bëgg sëriñ bi nag ba jeex ci tàkk dafa ñëw rek roy sëñ bi ni mel ci rasulullah sëñ Abdoulaye mel ko ci sëñ boobu jeex tàkk ci moom dimbali itam Sénégal discours yi mu waxoon ba tey suñ ko jëfandikoo woon problème yi am du am. mbooloo mi ngir jëmi Cheikh Abdoulaye mbooloo mi. waxoon na ne Tidjane mu ngi mel ni ñett ñu bokk nday ak baay. kii xeereer kii ñuul nee na kii xeereer kii ñuul kii weex kii wi mu ne koo koo ci xas rek ah, koo ci tam rek tam ka ca des pour wan ne kon ñun ñoo bokk kër diine yëpp ah, di dem nañ te ñëpp am la nag ci dignité ci mbaax daraangam dugg na fépp moom alaaji Idrissa Thiam mu baax mii kon ñu ngi ñaan nga yàgg ci te wér Thiam ñaanal soxna Kiné mu yàgg lool ci wooteem bii yàlla xam na ko bi ma woowee yëgal ma bis bi rek dama ne ko damay far fomm parce que lépp benn la dem Touba géeg fii foo ko màggale baax na waaw dem Touba fii baax na waaw wallaahi lazim fi mu ne bisam bii ku ko fonk laa moom fonk bisam bii la wallaahi lazim ndax yàlla xam na fi ne waroon na maa fekk ma dem États-Unis bu waaye ñu may woo di ma jox billet may jënd billet dama léegi comme jox na naa wax soxna si dinaa ñëw talaata bi màggal naa bàyyi ba waxtaanal ko ci màggalu si Abdoulaye ak wala xool may dem amee waaye bu doon keneen mën naa joxe ngànt bu yàgg dem loolu nag moo ñu ko ji parce que daje nañu fii dajewaat fi yàlla nañ fi yàgg a daje ñu xam ni sëñ Abdoulaye rek a ko ñoom xam nga li mu wax léegi dafa daw yaram li jataay bi neex neex li rek la bëgg a dëkk muy wéy juróom mu tedd bi sëñ Abdoulaye ñun dañoo marqué ñun ñun moom moo ñu marqué ndax ñun dañoo nekk xale yu ndaw bëgg sëñ Abdou Lahad rek xam nga waaw fële ma dëkk ca Géejawaay dafa amoon parcelle ñaari parcelles yu dend am ko ñu wax alaaji Ker Safal moo ko moomoon mu dem jox ko sañ Abdou Lahad waaw mu dem jox ko sëñ Abdou Lahad ni ko man de kër goo xam ne dañ ma koy jox kër guñ jox yàlla ma ko gën su ngeen demee na ngeen ko def néegub yàlla tudde ko masjidul aqsa ca Géejawaay yebal sëñ Murtada caatu sëñ Touba mu ñëw fa taxawuñu foofa tey tubaarkàlla mu nga ca bàyyi laay tornal bàyyi laay am na institut lépp waaye li ci nekk miracle mooy boo ñëwee masjidul aqsa dafa dend ak église bu rëy ba fa nekk te ñi dem fële Jérusalem gis na na mu dem te moom bi mu koy wax baatin la wax ñu tudde ko masjidul aqsa mu dendaat ak église bu mag ca géejawaay bàyyi laay ca foofa la ñu màggee sunu daayira tudd Masaalikul Jinaan daayira bi njëkk géejawaay ñun ñii ci la nekk ndaw di jàng di dem bi sëñ Abdoulaye kon nag ñun sëñ Abdoulaye tanu marqué marqué ñu nag ci terme yi ñu koy tagge le véridique le véridique mooy lan koo xam ne dafa dëggu léppam ci dëkk lay dox marqué ñu ci lan le bâtisseur mooy koo xam ne dafa bâtir fu nekk mu tabax tabax fa ay édifice lépp ci turu islam jox ko sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul xanaa xamoo daayira Allemagne bi njëkk année 1970 sëñ Abdou Lahad tax ci liggéeyam mu am Allemagne daayira bi njëkk Allemagne sëñ Abdou Lahad dañu ko liggéeyam 1970. tey jii liggéey boobu yaatu na rakam àggale ko sëñ Murtada ba tey àdduna bépp mu daje ko xam tey jii mu daje lépp kat kon sëñ Abdou Lahad yoonu murit mënu ko fay jullit yi kenn mënta fay sëñ Abdou Lahad ndax li mu liggéeyal senegal liggéeyal ko réewam liggéeyal ko booloo liggéeyal ko am jom ak nangoo liggéey nekk ci dara. loolu la ñu jàngal te loolu nag moo yor àdduna loolu la doomam ju baax ji tubarkaal la nekk nit dafay am dignité ci boppam nit dafay fonk boppam nit day xam fi mu bàyyi ko ndax mbokk tànn loo ko sa bopp yàlla su la boolee ci ku baaxee noonu ngay njabootam lii rek nga war a def ci lii rek nga ñu war a delloo kon ndokk bi nga ko xamee nekk ci loolu ci wàllu dignité ak liggéey kon suñu jullee timis man maa bëggoon a tënk rek ngir bañ a accaparer seen temps waaye comme soxna si nag bëgg na ko noonu moom